الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد أغلق القادم ما ترجع في والهادي إلى رب العباد هو يموت لا ينتقي سواه يا كريم mooy moo ñu amal ci coobareem diiseeful te bu ñu féetalee ëllëg du laajte kon bismil ilaahi maa ngi suwee kuy màndi di xaw furuy kat ya xawoon ba jot seen maya yaay jéema xaw ngir ko dëwal barahama bañ xam na mooy dëmi rasulullah ahmadu jaw fagul te jël xaatul te jël ma wax bi dee ci kuy suñu waaja nga wax ko ci wolof pagaañi namp li ay mbiram ñu xam kuy waaja donc lépp maa ngi di jaale kut bu ba na coori barahama yàlla ñu tànn leen xalilu da def ko muy imaamu lawliyaa yi yaaram ba dem na moo rawoon ci diina kenn mos la gis leen ma gongo déglu ma wax la tom rawee maa sàmm ga nga xam ne wal dogri alastu la bay ñes rawoon kuy moo jëkk a wax bale gannaaw rasulu ñu ko fay suleyman ko lislaam ba ko rangal ko garaati xutb keet la bay ñes jiitu kullu law yaati ruux yëpp fanaan bale defar ko wasallal ko andal ko foofa xam-xamu diraaya mu dal da koy tujjul mu jàngal yaa hóot laa mislahu billaahi ay ñas maa ko wóoru yaram ko xottu jàll bii malakut fala matee mu nekk maslamanki moo dongu taaha mooy borom basira ku ñëpp xam la ñin ka mos la yiibu yaram ko xott jàllat yi jëbërëb fa la xamee jalaal bokkum fal ngaay waaja mi dal ba jël ndam bi ngëneel ya jox ko ku xam ngëneel billaahi bàyyi ñes moo la xaajal ngaram do kotti jalla hijabul ma'rifa lolo waral kum yanga nekkugo haari fam fa baha badal bu jëm ci naaso ñu den ko ko suñu maam ja abdallahi muy góor gu nag ngeen ko xam ci diina mu boole maam do ak jëfoo sëriya mu gàddu leega dem tole ci bokkam ñu jox ko fa suñu maam ja astu jànka ko kaade soxna sarawoon ci soxna jànka ma raw na xayma jël na ndam la maam abdallahi dal da jëmee kisalbu hura bahemba jisko def ko kadu nekk na gambi nekk na kër samba sanci na tayba mooy dalab barahama sanci na tayba mooy dalab barahama atam bi biir ba mooy malawoo barahaama ci aw rajab bisan ba yawmul xamiisa fii waxtil hasri xutbu wàcc soodaan xamul haras la yëpp yëpp naaxi guddi kerat la leer yi a jolli mis naa ma ngay ci ngir jógee judum ba maw di dohee judum ba jar na magal maw di dohee maw di dohee maw di dohee maw di dohee maw di dohee dugub ba jar na màggal képp ku dem jullit jógal la màggal baay képp ku dem jullit jógal la màggal baay ku bëgg a tëdd ci adduna ba ñëpp na nga aljana jógal màggal ko màggal ko mooy màggal rasulillaahi te billaahi gën naa ko ci bismillaahi bi sa pëdësi baayam ba dal bu koy géntu jibril la wax si tur wa maam alhaaji naan ko nan ko tuddee jaliilillaahi kon danga gis ci man karaamallaahi mu dal ba koy tuddee jaliilillaahi ca yooya hat يجسمم كرامة مهم فنكحت ونم يقف جرقال يقف يقول الهداية يقال بكي كلام يقوه وانغورك يقول تخير سنين فرنا ويرو مين جنال كسم تجاني فنورا كوكو يقل سنين ممام على هادي مين سرين ممت ويرو فنيكي نورا كوكو يقل سنين ممام على هادي مين تالب يبلم بنان كالواجه تدان سامونا كان يومو كفوا feeñal man la ma wax barahaama moo ko feeñal ca yooya xar la jëkk wane xar baax fii waxtu la xasri ci lay jugal baayam baa ci réew mu la du des bu léegi mooy waaja baayam ba dal de wax keroog dongoom ya ñu jël bagaas ba loolu waat sakkam bi noonam yi ñëw ñaseen fekkuñ fa kenn keret ni def lu ñaaw taxal këram nga ak jàkkam ja sax na sakkam bi fukki at yu mët sëkk digal la del si waat an ko waajal démb yoo Abdalaayi ñes démb yàlla moo lay sàmm ñes boo demee dëkkal fa ñam buy fekk looy def ñu gis ko fu yàggee danañ la féexal maam Abdalaayi dal da wax ndoom gon ya ñu jël bagaas ba jël si wàccu réew mi nekk na dàgg dem na réeri pànd ngir sàmm leer ga ñes billaahi moo farlu mu sañ ci kuusi comme ma mel ni waagi noonam yëttel du kenn du waat pam fa baa la dal de sañ ci Kaolack képp ku yuhut ngëneel demal la ba Kaolack képp ku yuhut ngëneel demal la ba Kaolack waa Sénégal waaja barhama mel ni jant ca biir njabootam maam Abdoulaye Ba bokk ko gis sopp ko ngir daaram ba ci fukki at lu tëdd lu tuuti nay xaafis tëdd nga alquran waraw ku ñu xaalim ñaar fukki at ak benn ci la bay taalif téere ruuhum adab téere ba jommal naar ya mu dal dëggal téere ba jox ko baay ba baayam ba dal di ko jàng am lu mu ca gis ngeen ba dal di tuuru mu tëj ca ñetti at baayam ba dal di feebar te di ko fukki fan feebar ba dal di yokku mu dal doxoo njaboot ko juróom-benn kaani xam ne dëxal ba mat na ñas bii di mu faatu mu xool bay xalifa dem ko ko njaboot ga bay alaaji Babacar Ñas la jox jàkkaam ja mu dal di jël téere yëpp jébbal ko bay alaaji Mouhamad Sërifu nan ko dencal kii sàkku alquran nga jox ko kaamil kii sàkku xam-xam xamal ko pour ko tàntal moom maam Abdallahi sifile nañ biram ba ku nekk jot cëram mu des barahaamaat suñu waaja waaye bu ne bu ñëpp dem mu dal da koy xoolu ca néeg la ngay wax dal da ca ya lañ wax ca foofa ñu ko wax ci mbooloo yàllaay ki tam tay guutal yoo ko guutal daal ba man na baayam ba dal ba faatu soxna yam ruur bangam yëpp ba jaaxle barhama coow suñu waaja barhama dal dafay desat magam ya ñu jël ko yóbbu kuusi jox daara ñes kam yéeri xat la feeñal fëydu ngir xam lese lakka panaa boromam bay sëriñ bay rakkam ko moo taawam moo jëkka naar man ngir may leeru maam abdi ñan sëy ko omar ñoo ca aw kol coow la fa nekkal ñu bokkam ya daal ko ñal ma daal ko ko génn kerek la yoon di sàmm jin sàmm diina fa la jullee tisbaar kiram baay ba kubba kàddum nga raw na ay xaram di ci xol yi muy jàng alquran ba wax bi aaya laa taqaafoo wala tahzanoo lii moo waral kerek ñu ñu bi caaw na tukkee ci pël bu ab séeréer dugg laaw bi teew nañ torop sa sant gaasu jaayantu nandal nga réew mi si nandal nga Saalum nandal nga waa nandal nga réew mi waa Gàmbi fa saak joolaayu yëpp fa màndi na say ko say fa néegi te sir kebaa bi tii Mambay sellër ya koppi jàll réew ko sàkk ndaw te tay si koosu ka ñaareel ba say xaali ak alxaaji xóodu wañu gënam mun ko ci nee jukkoosu ñu bokk sar seen xol ya tanaan maalum naa sàkk fii billaadi ay rasuulullaahi amul sikka sàkk mooy rasuulullaahi ñu for de ñëw kàngoo ko ñëw si yaare te andi ay hidaaya te ay sërif lañu ca tab rasuulullaahi fii jot nit ku ñuul hadiya ca tab yonent càll Muhammad bul jox der bu ñuul hadiya sëris bu xonq cooyul da jox der bu ñuul hadiya moo ma xamal na min ka rek kay waaja nas tubal ngay turka tubal ngay moose turbal nga ay katakule ki jarme turbal nga xeeti xeet yu kenn mëntalim mokkal nga riir gi xaw saya wóor na saani boo jangal nga ay xaalim yu jaaxal misra waaye jangal nga ay xaalim yu jaaxal misra waaye sukkil nga dër bu ñuul sellal na diina waay naatal nga nit bu mos la am naataango naatal nga nit bu mos la am naataango waaye fal na koo xam ne maama musta dégg buur baani waaye fal na koo xam ne maam ja musta dégg buur baani yaa nag lu xaaja abdul ilaahi baay maale hooru narmiiɗo nduuɗi diino hokkeniyo gootuɗo wifito honni ɗanti haa te kuutor yaako hamal to soh jubuɗo yayi waaja ko witti lii demal ba néegi jom bi nga doy ba gis lamin ka def nga waaru jom musu faa ñi ne taxaw di taxal ba juru te jàng alquraana ñii jaamu ay kërum te tuuru ay jëlañ te sax ci faw xamuñ li jaadu gaa yi dafa dem te saare seen këram yi màppa jëlañ ya dal te sampa daara te dafa jàkka mii sikar de noddu xal dañu ci këram ya billaahi waay mooy waaja اهدنا الصراط يستقيم به به فإن برهامها سهسه نسك وسوى مرام اقتداء درمي جميل أنا أمي أجفون والخوال كوكو وسوى مرام درمي جميل أنا أمي أجفون والخوال كوكو من لي برد جماعي حق وايتها لي بالتحويل حالي زيني يقصكم أمير النهو سليمان تارة والإسونا كو غاين خيرو دوا جنحي بن سبندور كو غاين خيرو دوا جنحي بن سبندور كو غاين خيرو دوا جنحي بن سبندور ku gaynde xiiru dawoo janax yi buñ sabandoor du tax nga daw noppi leen waaye xëy si leen di leen fiir